moo ngi eway eh, dafa lu la neex Dé maa ngi lay. Babacar. ci loo ne. dégg la rek. foo daanoo. tout ginnaaw bi ñu ci sant yàlla dañuy ñaan ci yàlla ak Serigne Touba kii yan bi mu yoon yàlla na oyof ci bopp ci barke si yàlla oyof ak jàmm waaye doo dara kii ministre ñëpp la moo moo ko dimbali ñaata ñaata yoon ngeen ñaata yoon ngeen bëri nañ deux fois ku daan daana joof ñu takk ba wax la dimbali oh, loolu la dama la moo samaro day laaj waaw soo bëggee ñu may ko fii soo bëggee ñu may ko fii man maa la invité invité woo ma invité ministre bi invité ministre looy wax ci ñaar <laughs> looy wax ci ñaar. waaw waay lañ dañ ñëw rek bokk ci bés bi gunge si Jamaïcain muy lu am solo parce que li ñuy def dafa bokk ci làmb ku tudd Khadim Ndiaye xam ne am na ay bés ci làmb ji su bàyyee li muy def ñëw fekke si lii lu am solo la euh, gis nga aussi liiru jaan moom itamit li muy def yëpp générosité la rek ñu leen di sant ci placement bi def ñëw fii di sant jamaïcain ci bés bi mu ñu tuddee gis nga mobilisation bi dans la discipline bi am fii euh, looloy wane rek ne Fatick dëkku làmb la mobilisation autorité yi ñi ñu fi fal yëpp ñu ngi fi population bi ñëw jigéen ñi ñëw gunge jamaïcain ci bés bi di bés bu am solo ñu ni tamit ñu ubbi buntu yi pour permettre ñëpp ñi nga xamante ne bëgg na nañoo seetaan ñu ñëw seetaan peut-être ñu bëri dugg si nañ tey bu ñu ubbiwuloon buntu yi duñ mën a ñëw jamono ju mettee jàppalante rek a fi war a nekk moo tax jamaïcain li may wax rek mooy di ko ñaanal yàlla yàlla def ko mag te yar gi ne ci moom na continuer su continuer li mu bëgg xam ci làmb dana ko xam de gërëm Gaston Mbengue bi fi ñëw léegi jóge dakaar ba fii ñu bëri daanaka cees laa jóge ci course hippique man maa leen téye ne leen bu leen ñëw parce que drapeau chef de l'État ci foofu la ñu jëm te Fatick ak Kaolack benn la c'est la région du Sine Saloum su ko defee ñun ñëpp ñu bokk fee feete lamb ji jëm kanam. kontaan ci yow. bég naa ci yéen. dina nag si koor geeg waaye ñoo far liggéey bi ñoo ko bokk jërëjëf. final bu nar a neex la parce que ñoom ñaar ñëpp wax dëgg yàlla gis na ñu def ci ay combat yu neex donc tey final bi na xari Lirou Diane Khadim Ndiaye xam nga Lirou Diane Khadim yàlla def na ni ñoom ñaar samay nit lañu ay nit yu baax lañu Lirou Diane nit ku baax la Khadim Ndiaye mooy le meilleur course du Sénégal de Afrique mo ñëpp ko war a ñaanal kii nit ñëpp la waa ndeysaan final ba ngongu 3 millions francs franc moo gàtt féete à gauche franc aka mën a joxe ndogu jox na waa église ba ndogu mbokki chrétien ya wala boog seeti na leen jox julit ya ndogu nee naa ko billaay yaa baax ci réew mi. waaye Matar ba drapeau la ñuy bëree waaye jama kee ko tëgg waaye ñaari mbër yaa ngay lewaatoo nuyu naa waa Fatick waa ñaniñ jàppoo nañu solante jàppoo solante jàppoo solante jàppoo solante lu mu ko bëgg a def am njool la de moom Toubacouta Franc ki ngay bëreel njool de Fara ki nga ko seqalam njool la de Fara ki nga ko seqalam njool la de billaay jamay kay jàmbaar nga réussir na la 16 promoteur yi ñëw nañu seen naa Mor Mbaye Ngéwél gi production eh jël na ko mu bañ xale ba wëndaalu na moom jëli na ko xale ba wëndaaloo ak moom wëndeelu mbaay mbaay ndengeeñ na ko moom Franc ñaari loxoom jàpp na benn loxo ba génn na ku nekk sa benn loxoo jàpp sa main moo jàpp ci peeku ngemb arbit lu xew ah. arbitre bi avertir na Franc lu xew lu Franc def Franc loo def ci suuf ee eh, tànn na ko yàggul daan na ko jël bu rëy rëy rëy Franc kenn du Franc jël bu rëy. waaw mais ki ko daan nag war na ko mën a daan. nañu daane Toubacouta. waaw Toubacouta dañ ko dañ ko dañ ko fàq mu ñëw ñu dëpp ko. te ki ko daan war na ko mën a daan ndax kookoy Franc bu parcelle mbooloo. nekk vraiment révélation boo xamante ni boo xoolee année yi mujj yi li muy def ci lu simple. vraiment mën naa wax ni ba Reug Reug tegee ba léegi fa Reug Reug tegoon tànkam la ko teg muy ndaanaan boo xam ne ko làmb bàyyi xel boo xoolee jëlim daan Toubacouta nga xam ni benn daf ko ëpp compétition en même temps da leen a gën a miin bëre bi ñuy bëre muy bu lutte simple vraiment muy ndaanaan boo xam ne na ko làmb bàyyi xel waa gis nga turki njaare waa gis nga di rek laa def xam nga lii nag moom naa ma gën a xam waaw du a ñàkk waaw mais ànd ak sama doomu ndey muy Mar Ndiaye di vraiment jeune amateur boo xam ne ku fidèle koo xam ne fu ma jëm maak moom ñooy ànd mu maar amateur laa bëgg a dindi man waaw non amateur rek amateur dëgg la dëgg la waay seen amateur pas ak maire ñu c'est des amateurs. dëgg la ndax li nga. essentiel que yéen a ñun ay amateurs lañu. te ñu jaral boo xoolee Dakar ak Fatick sori mais le fait que ñu déplacé wu ñëw ànd ak suñu effectif ñëw vraiment kii nekk maar bu doomu dàngu vraiment nekk amateur bu mag foo xamante lamb simple am na fa dañ fay ànd dem. vraiment waaw. maar looy wax. waaw di leen nuyu rek di leen jaajëfal yéen di wax yéen ngi liggéey liggéey bu am solo ci lamb di wax affaire yi moom yaatu na na ñëpp ñëw loxo yi na ñëpp ñëw ñu liggéey làmb lañ bëgg a defar rek waaw loolu rek moo ñu yëkkati di ñaanal président yàlla taxawaay bi yàgg daal ñu ngi leen di jaajëfal ndeysaan lii mooy a ngi nii Fatick a ngi Mame Idriss a ah! <laughs> te bay naan ne dexu Mame Idriss bi mais bu xeebee dex bi bu suuxal ko de <laughs> day suux <laughs> day suux de moom na jéeglu na na jéeglu waaw kon wuli am na problème mooy dëkk ba tar ba te dëkk waaw dëkk bu Macky Sall président Macky Sall dëkku dëkku Cheikh Kanté dëkk Mame Adama Ndour dëkk ñëpp laa la wax Fatou Abdoulaye Ndour Abdoulaye Ndour sa papa ji baax bi daas nga xam ne amul lu mu fi deful. bilaay walaay kontaan naa Babacar. Adama su ma xool dafa sedd ga. lii dafa waroon di fi am su ma xool ak yéen. kontaan. Sadek chaque jour rek buy suqaliwu si wàllu sport rek. di gërëm Sambara Jon su ma nijaay ju baax jooju. di nuyu waa Fatick ñëpp fàttewuma kenn lim bi sax daf lay indi erreur ndax man mboru askan laa ñëpp ma faral ker gu may dem da nga yaakaar Adama kër gi la nekk loolu nag ku fay def nag doonaa fekk doo lekk fii rek foofu neex nga ne fii moo nangam ak nangam da ngay yemale ñëpp di wax ñëpp ci lu baax ndax dëkk bi dafa xat kenn mënu fee jow kenn man kenn du ma wax loolu dara loo ma bëgg a wax toog noonu man aussi bi naa mi na seetaan rajo ma waxoon mais kontaan naa si li a tuut ah dafa ne dëkku Fatick bi la nangam ak na tuub dëkku Fatick bi dëkku Fatick bi ma ministre eh, bawal rek ndànk oyofal mbir mi comme bawal la